ab solda bu l'armée national bu Sénégal moo ñàkk bakkanam ci accident boo xam ne mu ngi am ba suba euh, tey bi fa ñuy woowee mu Foxa nekk ci département bu Saraya ci région bu Kolda ñu ne nag li waral bile accident ab oto boo xam ne kon dafa bokkoon ci seenu ba cortège moom moo dérapé ba mu dérapé nag kon xalangu ci yoon wi ba sax dal ci li nga xam ne moom mooy ab poto bu weesoo nag euh, solda boobu nga xam ne ñàkk na si bakkanam am na juróom-ñeent yoo ñu ne am nañ ci ay gaañu gaañu kenn ka sax ñu ne mu ngi ci dans le comment njiitu réew mi Macky Sall mu ngi wéyal euh, tukki bi nga xam ne mu ngi koy amal ci région bu Sédhiou muy tournée économique euh, boobu démb nag euh, defoon na li nga xam ne moom mooy inauguration bu centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba bu Sédhiou muy nag jumtuwaayu ko wér-gu-yaram ñu ne boo xam ne nag hôpital bu am solo la foofu sax ñu ne am na lu toll ci dix-huit services médico chirurgicaux te it daal ay paj moo xam ne paj mu am solo solo bu mucc ayib lañ fay defee ñu ne tabax bi tabax nañ ko tabax boo xam ne bu ama am solo la démb ci conseil des ministres décentralisé bi nga xam ne kon amal nañ ko fële ca Sédhiou ñi nga xam ne nag euh, ñoom ñooy euh, nguur gi appliqué nañ fa daal ay test kon euh, texte yoo xam ne sax jëm na ci wàññi li nga xam ne moom mooy njëgu loyer bi kon décret bi nga xam ne njiitu bi mi sax jëloon na ko kon démb la dugg en vigueur ki nga xam ne sax euh, moom mooy euh, Momar Ndao njiitu réew mi Macky Sall tabb na ko euh, nga xam ne mooy jiite kon commission bi nga xam ne kon commission nationale de régulation des loyers des baux à usage d'habitation maanaam noonu lañ ko dippee ki nga xam ne nag moom mooy Momar Ndao nekk njiital asko ASCOSEN moom lañu ko dénk njiitu réewum France Emmanuel Macron moom nag euh, tàmbali na bésub démb ab tukki boo xam ne da koy amal ci Afrique euh, centrale moom nag kon euh, démb ñu ne ca ngoon yegg na fa nga xam ne moom mooy Gabon war fa nag kon dajeeg ki nga xam ne nag moom mooy njiitu réew ma ñi nga xam ne nag ñoom ñooy opposition ba sax ñu gisee ne daal loolu visite boobu kon daal day mel ni kuy may doole ki nga xam ne moom mooy njiitu réew ma euh, te sax euh, opposition euh, ba di ŋàññi bu baax a baax na nga xam ne moom lay doxalee moom njiitu réew mi nag Emmanuel Macron daal dafa nekk ci ay jéego yoo xam ne dafa bëgg defaraat diggante France ak réewi Afrique. xibaaru sport lañ koy jeexalee gayndey Sénégal yu euh, U20 yi ñoom nag ba suba tey bi dinañ football quart final bu CAN euh, u ñu war ci nag euh, jàkkaarloog seeni naataango yu benee match ba nag kon dina am bu 14h GMT jotee buñ ko dóoree nag kon war a qualifié ci li nga xam ne moom mooy demi-finale bu CAN U20 boobule loolu ñu tey ci xibaar rafetlu seen teewlu di leen jox dig daje ëllëg jaa ngeen jëf.